ndax ñooñu ci ay bëri 4 heures lan jot benn xabaar bu ne am na mbooloom jóge ci boori garage Dakar jëm si jumaay Touba mais na dañuy def si ab tawaaf ñu daal di ñëw di leen xaar ban agsi 28 ba agsi Sëñ Touba gi kilifa gi Sëñ Fàllu daay toog ak taxaw ak seen kilifa ñoom nuyoog ñoom sàmmut ak ñoom dalal leen laaj lu seen tànk ñu ne ñoom dañoo ñëw ngir def si tawaaful ifaadati wër jumaa ji juróom-ñaari yoon dem ziar suñu fa na leen tawaaf moom xamuñu ko ci jumaa ji ndax jumaa ji du kaaba te boroom wutiwul loolu kon te ngeen dellu laaj ndigal sëñ bi ndax bu joxee ndigal li wax leen fu ngeen di jaar danañ ci am ma mën na dal ngeen def seen bëgg-bëgg waaye li ngeen waxee ni moom mun ñu koo nangu ci jumaa ji ndax jumaa ji du place bu ñuy tawaafe ndax tawaaf ifaada mun ko ñëpp xamee moom sol solu weex tawaaf moom du firiwut ne yaa ngi tuubaakoon ndax tubaab moom loolu ziyaaran xam waaye tawaaf moom màkk la la wére ndax màkk la xewe ndax jaamu yàlla balaa wér da kaa bokk barab ba mu laaj da nga koy defee tawaaf moom Tuubaa moom xamuñu ko ñu xam mooy ziar nañ xam jàkk ji julli julli génn ziar jàng alxuraan jàng xam-xam baa nga toog di jël sa kurus lan fe xam waaye bees moom xamuñu ko te njëlbeen gi sax kilifa da d'accord nañ ñun waaye xam nga mbooloo mi tamit dañ koy lay fipp ñu forcé wu ñu def ñu def ñu jaay fi war jaar mooy alerte waa police wax ne li xew ne leen teewe ko daal nag def suñu liggéey ndax dañoo dénk lu ñëpp bokk muy jumaa ji ñu jël suñuy xam-xam suñu jot suñu doole taxaw ci kanam daal nag ñun li ñu digal moom duñ bàyyi kenn di ko xët ñu xëccoog ñoom xëccoog ñoom def suñuy pexe ba téye kilifa gi ak ñeenti nit police ñëw jël leen ñu des ñoo ngi ci biir ñu yóbbu lii mooy fi xew. ndax jàppante amoon xëccoo na xam nga ñun dañoo am na lu ñu mooy wootal ci xikma dana leen woo leen woo ci waxtaan njëkk a woo laante biir ñu jim ñoo waar ndax xam nga bu nee ñoom dañuy tawaaf kese mën naa firi ziar kese waaye tawaaf dafa dafa nakkiraa léegi ñun ñoo leen lu nga jublu ñun tawaaful xuddóomi ifaalati loolu dafa leer léegi mooy mooy ñoom. makka daa bokk ci sarti aj makka nga def tawaaf nga war kaaba gi nga caa bokk boo dugg si ak boo koy boo fi aj booy booy booy ziare si umra wala nga aj ñun nag fii du umrawukaay du ajukaay moo tax duñ bàyyi kenn nga fiy woote loo xam ne nii suñu tuwaa xamu ko diglewu ko ñun daal suñu lañ dox ci leen nekk incha allah